juge des référés jokkoo nañu ak moom ci lank gi nga xam ne DGE def na ko ci jébbal fiche de parrainage Ousmane Sonko mu am nag délai bu ñaari fan bu ñu sukkandikoo ci article 85 bu loi bu cour suprême Ousmane Sonko dina nekk neex na xari candidat ci élection présidentielle bu 25 février 2024 élection présidentielle yi daanaka article 28 ak 37 bu constitution bu Sénégal di ndey charte réew mi moo ko daal di réglementé code électoral bi dëggal ni am na nag ay modalités yoo xam ne foow ñu tënku ci ngir mën a amal li ñu duppee organisation du suffrage DGE nag administration la amul benn compétence ngir rek càmbar éligibilité citoyen sénégalais ak bu mu mën a doon rawatina naan candidature bile mën nañ ko nangu am déet parrainage benn poñ dong la ci dossier de déclaration de candidature yi nga xam ne daanaka juróom-ñeenti pièces la daal di wundu rawatina nag juróom-ñeenti mention yoo xam ne dafa war a bokk ci boobule dossier Ousmane Sonko dina nekk candidat ci élection présidentielle bu 25 février 2024 ci wàllum droit administratif am na ñaari xeetu voie de fait yoo xam ne mën nañ ko ci jàpp benn bi mooy voie de fait boo xam ne day jëm ci manque de procédure beneen bi jëm rek ci manque de droit DGE bu ne du jébbal ay fiche parrainage président Ousmane Sonko ngir mu bokk ci li jëmmal dossier de déclaration de candidature DGE dafa wàcc yoon mën nañ jàpp ni dafa def voie de fait par manque de droit dogal bi àndul ak sañ-sañ yi nga xam ne moom nañu jox boobule këru liggéeykaay jarul sax ngay jàng droit ngir xam ko ndax ku ne xam na lu yenu maanaa ak lu ko yenuwul ci misaal nit bu joteek moroomam yëkk bëtam ca kaw lu muy sàkku mooy sunu borom te dëgg bu fekkee ne mbir yi dafa aajoo ci wàllum institution dina ci wax moom Ngouda Mboup bu laajee mbirum constitution mu daal di ciy dogu ngir nag dëgg daal di feeñ di bataaxal boo xam ne Ngouda Mboup moo ko daal di bind. AGT News. Merci pour la confiance renouvelée à votre chaîne préférée AGT News. Le juge des référés saisi contre le refus illégal de la DGE doit rendre son ordonnance dans un délai de 48 heures, article 85 de la loi. Ousmane Sonko sera candidat et participera à l'élection présidentielle du 25 février 2024. L'élection présidentielle est réglementée par les articles 28 et 37 de la Constitution. Le Code électoral précise les modalités d'organisation du suffrage. La DGE, simple administration, n'a aucune compétence pour apprécier l'éligibilité d'un citoyen sénégalais ou encore la recevabilité de sa candidature. Le parrainage est une pièce du dossier de déclaration de candidature parmi les neuf pièces et les neuf mentions qui doivent composer le dossier. Ousmane Sonko sera candidat et participera à l'élection présidentielle du 25 février 2024. En droit administratif, il existe deux types de voies de fait. La voie de fait par manque de procédure et la voie de fait par manque de droit. En refusant de délivrer des fiches de parrainage au président Ousmane Sonko aux fins de constituer son dossier de déclaration de candidature, la une voie de fait par manque de droit. Sa décision est insusceptible de se rattacher à ses compétences prérogatives et attributions. Il s'agit d'une illégalité manifeste qui perce les yeux, constatable et pouvant être décelée par toute personne. Même quand on tourne la tête vers Dieu, c'est pour y chercher du droit. Quand c'est institutionnel, j'en parle. Quand c'est constitutionnel, je m'engage. Un texte signé Ngouda Mboup. AGT